man la Mame Cheikh Kane maa nekk coordonnateur mouvement CIE Sénégal pour tous mais dafa composé nag yeneen association ak yooyu yeneen CIE yoo xam ni ñi ngi jóge ci yeneen gox yu fasantikoo tey ju woo leen pour ñu daje def benn rassemblement boo xamante ne li nga xam ne artisan yi nekk Touba ñi ngi koy daj aussi di ko joytu ci biir néeg yi ak bii kër yi tey ñu yëkkati sunu kàddu ba nga xam ne ki nga xam ne moo fi nekk ndey ñëpp di bàyyi ñëpp muy état Sénégal moom lañ taxaw pour interpeller ko muy dañu gis ne à chaque fois dañuy dégg ci rajo yi ak télé yi ñuy wax ne dugal nañ ci li nga xam ne mooy xëyum ndaw ñi ak DER bi ay milliards yu dul jeex mais milliards yooyu à chaque fois ñun dañoo déposé woon suñu ay dossier boobu ba léegi ñi ngi toog ci ginnaaw di xaar mais gis ñu lenn loo xamante ne nii tey maanaam loolu am na ko siiwi beneen bi ci topp mooy ñun état Sénégal dañ ko teggil lu bari mooy loo xamante ne nii tey moom moo nu waroon a farme war ñu jàngal yor sunu santé même apprenti yi ñu yor suñu atelier moom da ci waroon na dugal loxoom mais loolu lépp tey defu si lenn ñun ñoo ko yoral suñu bopp jàng nañ métier ba xam li ñu war a xam di yor suñu entreprise di liggéeyal suñu bopp bépp kayit boo xamante ne wax na su ngeen ko wutee am ñu wut ko ba pare mais déposé fi ñuy déposé fépp mais ba léegi amul benn siwi boo xam ne gis nañ ko fi te à chaque fois bu ñu toogee di seetaan télé yi wala ñuy déglu ci rajo yi dañuy mel ne ñun beneen Sénégal la ñuy dégg parce que suñu déggee ñu ne état Sénégal tey génnee mais mel na ndawi Sénégal kon tey booy xool dafa nekk ñaari xaaj ndaw bi nga xam ne moo nekk Fongolemi wala bi nekk Kédougou wala bi nekk Touba daal wërta bokk même égalité ak ndaw bi nga xam ne moo nekk Dakar wala moo nekk feneen loolu nag tey moom lan taxaw comme nit ñu xamee ci yar ak teggin ñu taxaw di la interpeller ne état Sénégal ministre am yi nga xam ne ñoo ko fi nekkal di ko wax ne li nga yónni woon àgg na ci ndaw ñi ñun ndawi Touba de ci suñu wàll rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ouvrier yi fii prix yi mi ngi inflation mi ngi gën a seer te ba léegi mënuñu wax ne prix yi fii lay yem amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem beneen bi ci topp deuxièmement mooy formation yi nga xam ne ak renforcement capacité yi nga xam ne état Sénégal diggé woon na ko ak ñun ba léegi 70 pour cent wala 45 pour cent bénéficié nañ ci di ay ndaw ñun ndaw yooyu de kon ñun bokkuñu si déposé woon nañ suñu dossier mais ba léegi boo demee sax agence ba mënuñu la wax sax information sa dossier bi fii la toll taxanaa nit boo ko laajee li nga xam ne moo ngi laaj ba mu jox la ko tey à chaque fois nga ko informer kat ah, li ma joxoon lii ak moo ci toll ak lii moo ci nekk lii ak lii moo des kon nag état Sénégal négligé boobu nga xam ne am na ko ci ñun moom lan koy laaj ba xam loolu lan moo ko waral ñun dañoo bokkut ci ñi nga xam ne ñoo ci war a am wala ñi ci war a am dafa am leneen loo xam ne moom lañ leen di laaj lu dul fu nga xam ne moom la deer fii bu Touba di laaj loolu daal moo nekkoon tey suñu ndaje moo waraloon suñu woote bii am na nag yeneen ndaje yu ñu war a defaat ci yeneen gox yu fasantikoo di ci woo ñëpp nag ñu ñëw tey xam ne ku ko dégg lii moo waraloon ouvrier Touba yi taxaw ngir jooytu seeni naxar si nga xam ne mooy état Sénégal mu war leen a jàppale te jàppalewu leen tey ñuy laaj maanaam mu jàppale ñu loolu metti rek wax naa ko fii sànq ci biir waxtaan wi nee naa ñun li ñu liggéey mën nañ ko assuré ne du yàqu mën na toog 10 ans du yàqu yéen importé su ñëwee suñ ko tegee ci dépôt bi bala ñu koy monté lu ci bari yàqu tey loolu moo dal Senelec yeeg yi nga xam ne mooy agent état yi seen bureau yeeg yëpp dañ koy commandé extérieur Macky bi muy ñëw waxoon na ne 48 pour cent da koy jox artisan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ba léegi gis ñu sax 10 pour cent kon loolu ay wax la ma jàpp ne kon li ñuy wax ñoom bu ñu bëggee falu ak bu ñu toogee en réalité ni ni gouvernement yi ça fait deux parce que Macky fii la toogoon yoonu yokkute teg ko muy programme bu baax mu ne li ëpp ci politique am da ngay jëmee ci ndaw ñi mais ba léegi ñun gisuñu ci dara importation boobu nee na woon 48 pour cent dina ko si joxe waxuma mais taabali bureau de vote yi sax bu ñu wate fii da gis ñu daaje ko feneen sëf ko ci ay camion di indi kon xam nga ne li ñuy kon dafa jot parce que ñee dañu ñu liggéey nan def concours nan def nan def concours ak ñoom wallaahi dàqu ñu noo liggéey. li ñu liggéey gënuñu noo set liggéey gën ëpp ñu noo xam-xam te ñoo leen ëpp bois bu baax parce que ñoom li ñu liggéey ay escaf la ak ay kayit te ñun bois la ñuy jël traité ko liggéey ko ba nga xam ne macha allah mais booy xool dafa mel ne Macky Sall moom mu dimbali entreprise étranger yi ak entrepreneur étranger yi moo ko gënal mu dimbali entreprise sénégalais ak entrepreneur sénégalais loolu moom tey booy xool entreprise étranger yi seen liggéey mi ngi fiy dox cinq cinq vel vel mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii di ay ndaw topp si ginnaawam di yuuxu benn mag wax na ma ko bëgg démb nee na ma képp koo xam ne tey toppoon nga ci Macky Sall di ko tàccoo ko yuuxu tey wiccax nga sa loxo mais tey ñun wiccax nañ suñu loxo. la Bassirou Gaye nekk responsable politique bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar tey ma ñëwoon fii ci xayra fekk si sumay rak sumay jarbaat sumay xarit ñu invité woon ma ci seen assemblée générale bi ñu doon def. ma di leen remercier nag bu baax ci courage bi ñu am ba invité ma ci pour ma fekkee bi ma ñëwee aussi j'ai trouvé des personnalités très responsables parce que ñoom ñëpp c'est des chefs d'entreprise kenn ku ci nekk yor nga sa atelier wala nga nekk maître mason yor say apprenti di leen jàngal métier tey nag bu ñu demee ba yàlla dogal ñu gis ni li ñu nekk di ci yëngu ñoom dañuy contribuer bu contribuer bu baax a baax a baax ci développement Sénégal dañu ñu seen bopp ni dañ leen bàyyi ginnaaw loolu yoon la ñun ñi nga xam ni dañu ànd ak coalition bi ànd ak le président Macky Sall di liggéey ñu fekk si leen waxtaan ak ñoom déglu leen mais aussi apporter leen suñu xalaat ak suñuy solution tey ji li ñu fi dégg yëpp dégg la ndax kenn ku ci nekk boo demoon atelier am mu ngi jàngal métier lu mu gàtt gàtt gàtt nee nañ fukki nit te ñii fi nekk c'est pas de la quantité mais c'est de la qualité et que qualité boobu dafa mujj wëlbatiku doon quantité ndax plus de trente personnes di ay chef d' entreprise boo ko multiplier kenn ku nekk yor dix personnes je pense que ni dina dem mine de rien trois cent personnes kon donc ñooñu ñu war a jàppale la. wax ngeen ko nag vous avez eu l'honnêteté et le courage de dire que ni le président Macky Sall a investi ci jeunesse bi mais cet investissement la moom ngeen gisul yéen et vous avez pleinement le droit de de le réclamer. bu fekkente ni fi nit di jaar ndax gis naa fi ñoo xam ne yor entreprise am ñoo xam ne ñu ngi seeni seen am ñoo xam ne ñu ngi ak seen association di yëngu ci menuiserie masonerie électricien ak électricien moto ak yëpp gis naa leen fi ak tapissier yi donc ma bëggoon nag ñi nga xam ne tey ñoom la président Macky Sall confiancé ba jox leen ay responsabilité ñu jëm ci ndaw ñi nañu liggéeyal président Macky Sall te bàyyi seen caaxaan yi Macky Sall li ko waroon lépp mu ngi koy def mu ngi dénk nag ñoo xam ni xëy na jàpp na ni ñu ngi koy liggéeyal mais nag la ñuy yàq moo ëpp li ñuy defar parce que tey fii Touba toll fi ndaw ñu toll Touba nekk deuxième ville du Sénégal jàpp naa ni amul benn ministère wala benn directeur boo xam ne war nga yor kuréelu ndaw te chaque deux mois wala trois mois ñëwuloo fi rencontrer ay jeunes waxtaan ak ñoom ñu jox la seeni programme wax la seeni projet pour nga mën leen ci apporter ay solution parce que il am nañ matuwaay ndax président de la république dox na leen tous les moyens nécessaires pour ñu approcher jeunes yi je lance donc un appel au ministre de la jeunesse que mu ñëw waxtaan ak ndawi Touba pourquoi pas même def fi forum de l'emploi forum artisanal ñoom ñu mën a toog waxtaan ak moom échanger ak moom def ay panel je lance également aussi un appel à la FNPJ nañu ñëw xool xale yi Touba De même que Pape Maudoufal, la directeur de l'emploi qui de la région de Djourbel, mais également aussi la DER. La DER, nga xam ne DER bi presque li ci président Macky Sall injecté pour ñu accompagner askan wi ndaw ñi femmes yëpp kenn xamul nu mu toll mais aussi le ministre de l'artisanat mi nga xam ne mooy seen ministre il faut que ñoom ñu ñëw di wax ak nit ñi bañ a toog rek entre quatre murs bureau climatisé di expliquer loo xamante ni demuñu à la rencontre de ces jeunes là loolu dañ koy déplorer. donc nous lançons un appel à tous ces gens là pour que ñu ñëw déglu gone yi waxtaan ak ñoom apporter leen ay solution ndax nag ay gone lañ yoo xam ni ñu am kilifa lañ ñu amub yar lañ du ñu toj du ñu taal du ñu yàq ndax li ñu def nii dañ ko def ci taalube ndax dégg nañ li sëriñ bi wax dëkk bii dëkk bu ñuy defaroo la mais kenn du fi yàqoo comme nag ñoom dañ fay nekk defaru fi ba di fi defar ay gone jàpp naa ne dañ leen a war a jàppale dañ leen war a jàppale pour que demain ñu mën a am lu ñu bëgg donc je lance un nappel à tous ces gens là pour que ñu jàppale leen nappel appel à nos autorités à qui le président de la République a confié des responsabilités le président ne pëkk confier des responsabilités et donner les moyens et il a les moyens comme il a mis les pour jeunes là sur le terrain descendre sur le terrain accompagner les jeunes les écouter mais aussi apporter des solutions pour que ces jeunes là puissent avoir des lendemains meilleurs c'est des jeunes qui forment de petits enfants c'est des jeunes qui forment de de futurs patrons donc ils ils ont du mérite ils pouvaient ne pas ouvrir des ateliers aller travailler pour d'autres personnes mais ils ont eu le courage de rester ici avec le peu de moyens ils se pour qu'au moins ils puissent se prendre en charge eux-mêmes mais également aussi prendre en charge ceux qui dépendent d'eux. Nous lançons un appel à Pape Modou Fall, qui est de la région de Djourbel, un appel au ministre de la Jeunesse, Pape Malik Ndour, mais également aussi à la DER, à la FNPJ, mais également aussi au ministre de l'Artisanat, un ministre auquel ils dépendent d'eux. Nous demandons également aussi aux bonnes volontés, mais de penser à ces braves, à ces braves chefs d'entreprise. Pourquoi pas ne pas passer des commandes avec eux. Mais ils préfèrent aller à Dakar, aller à l'étranger pour commander et laisser ici ces jeunes-là. Ils travaillent avec de la qualité. Donc, tout ce que vous avez dit ici, c'est de la triste réalité. Nous allons vous accompagner. Nous allons être votre porte-voix, mais également aussi la presse. Vous êtes des partenaires à ces jeunes-là, qu'ils veulent que leur parole, leur engagement, leur décision puissent arriver à bon port. Cela veut dire à l'oreille de la personne qui peut, qui leur rendre service, mais également aussi à la personne qui est prête à accompagner ces jeunes. Le président Macky Sall est un président jeune et il comprend bien et il sait bien. Comme il a donné des responsabilités à des gens, c'est à ces gens-là, en retour, de venir répondre à l'appel de ces jeunes-là, mais également aussi pour satisfaire la demande du président Macky Sall à l'endroit de sa jeunesse nationale.